ci ci waxtu sàngam maanaam kat ñeenti waxtu ci ngoon ci altine bi ñuy xaar bañ ñu wooyee tamit ñoom sax woowu ñu waaye dañoo woolu ñu ministre bi nga xam ne dafa leen dayal daf ne leen daal mënatu leen dalal ndax dafa am lu muy waxtaan loolu nag loolu dafa mel ni li président wax dégg ko ndax daf ne mu woo boulanger woo mu ñu waxtaan waaye woo boobu amul waxtaan kon amul. daanaka li ko tàmbalee juróom-ñaari fan ci weeru janvier ba boulanger yi ñu ngi ñaawlu te farin gi saag bi nag ñu ngi koy jaayee ñetti junni ak juróom-ñaari téeméer ba ñeenti junni ak ñaar téeméer yokk bi nga xam dafa naqar boulanger yi Maam Fatou Fati accident gu metti nag am démb fële ca Tiwaawan jak ab camion bu chargé woon béton moo daal di ah, dal daw dal ci kaw génn ndaw ak ci benn soxna xale bu góor bi nag ci saa si la daal di ñàkk bakkanam soxna si nag jamono ji amee ay gaañu gaañu yu metti ba ñu yóbbu ko fële ca l'hôpital dañ ci ànd ak Daniel Diouf ak Jibi Diaw lii gu tuurooti muy firndeel mettitu gi amee fii ci ab camion mu yeb béton du fisk don daw daw yu metti ba mbeuk ñaari nit kenn ki di ab xalé gu am fukki at yu tek fatu ci sasi kenen ki di jigen di ab mag mu am ay gañu gañu yu metti ben camion la bi yeb yeb béton mhm. ñew daw ba fi ñew saaraan ye ci ko dóor tek ñetti maire yi di jéggi ben maire la ak ànd xalé bu jigen ak ben xalé bu ñu daw di jéggi camion bi jël len mu da moom lañ nee ne leen daw puus puus leen bi ci biir dugal ñoom ci biir puus leen ndaw ñoom bi ndaw ñoom sori na fi mu leen jëlee moo sori ci kaw bordine bi fi mu leen jëlee euh, war naa mat ay juróom benn mètre ah foofu après mu taxaw bi mu taxaw foofu bi muy arriéraat nag foofu nag moom vraiment moom ku àndut ak sa xel dëgg dëgg moom munu faa taxaw maire bi moom yaram yi yàqu na carrément kee kee moom moom dee na moom kenn waxatu

dund gi mën a sakkan parce que ñun ñëpp ay doomu aadama la. donte sax campagne yu yeete yi ñoo ngi wéy di leen i amal ngir ñaax chauffeur si ci teey ak dal teewul accident yi fii ci ndakaaru di wéy di faat ay bakkanu doomi aadama. ci jamono ji fii ci biir ndakaar nag ñu nemmeeku fi yalwaan gi bëri na fi lool rawatina ci xale yu ndaw yi xale yu ndaw yooyee sax ñuy woowee ñoom dañoo jàpp ne yelwaan gi dara nekku ci dañ koy fetlu sax ndax jàpp ne ak yelwaan gi day tax seen daara yi di gën a suqaliku uh, Kumba Caam ba dëkk bi taalibe yi bu ñu sukkandikoo ci UNICEF atum 2010 ëppoon nañ juróom fukki junni ci senegal juróom ñetti junni yi Dakar lañu nekk ñu si bari nag si réew yu bokk frontière ak senegal lañuy jóge si yelwaan bi lañuy am lépp lu ñuy am si yelwaan bi lañ koy am amuñu ku ñuy fayal daal lu ñuy jàng du ñu fay sëriñ bi day jàngale du ñu fay dara ñun tamit yelwaan bi lañ koy fay dañuy yelwaan jox ko. loolu yelwaan dañ koy tere fii ci Sénégal nekk na lu ñuy wéy di gis taalibe yu bari bu ñu nekk xale bu ndaw la ñuy jóge seeni kër. Azal. oh. oh. oh yelwaan nag nekk na loo xam ni ñoom tànnuñu ko. ndox mi. ak bu kenn feebaree si lañ koy faj bu ñu jàppalee sukkuraay bi ak ak li ñu ak prix yi sol ñu jënd si yeneen ñu bàyyi li def atum 1975 ak léegi nguuru Sénégal nag mu ngi def kéemtalaay kàttanam ngir rawatina bu taalibe yi wante ba tey mu ngi fii law ngir dakkal yelwaan googee sax fii ci biir Sénégal nguur gi nag démb amalon na ab ndaje nga xam ana yang plan la ñuy tëral ngir lii di dadi dak fi ci biir Sénégal ndaje bobé nak Fatou Bintou Konté teewe woon tolu ko. nañu ci juróom-ñaari djuni ak juróom béni tali bi ci ndakaaru yu yalwaan bi lim ki di ministère de la famille et de l'enfance moko joxé joxe gi nak doon lu metti ñi nga xamné ñom ñoom autorité ba tax ne dañ ci fas yéene taxawal ap plan. dañuy bëgg li nga xamné moy xalé muy ak sen nekkine nous sommes au Sénégal Nous rek Dakar mais la région Sénégal ministre de la femme Mariama qui a am nga commencé par les familles religieuses que diiné yi commencé par également association Mère coranique association musulman yi nga xamné dañ ci dëkk bi bari nañ trop ñëpp représentant fi ko également ministère technique yi ak ñi nga xam ne ñoo toogal gouvernement bi muy préfet ak gouverneur yi ñu waxtaan ci ay pexe yoo xam ne suñ ko tënkee euh, ci kàddu jox premier ministre moom li mu namu pour euh, présider benn conseil interministériel dina mun a jël ay décision yoo xam ne gàllankoor boobu ñu teg xale yi ci wàllu yalwaan. dindi fi yalwaan ji nag dafa di loo xam ne ñii di jàngalekatu alxuraan yi jàpp nañu ni faaw nguur gi lépp lu muy def mu boole leen ci ba pare nag taxawal ab organisation. ministère bi yoon ñi yalwaan ci mbedd mi dañoo niroo ak taalibe yi ndax ku yor pot bu ñu la laaje looy déclaré da nga naan taalibe laa mais taalibe yi matuñ pour cent ci ci ci ñi yalwaan ci mbedd mi su boobaa nag pour ngeen xam ndax ñi yalwaan taalibe lañ wala duñ taalibe en même temps it seen der bañ yàqu ndax bu ngeen ci jógee dañ naan da ngeen di xeex alxuraan te fekk boobaa du ngeen ci mën dara li mooy na ngeen fexe taalibe yi nga seen bopp ngeen comme organisé wu nañ ngeen wutal leen ay toni ñii di organisation droit de l'enfance yi ñoom nag am nañ ci njort gu rafet yaaka ne lii di yalwaan fii ci Sénégal war na fi mëna a deñ y a eu des des des progrès. amna ay progrès liggéey nañ ci lu bëree bëri ci walu lycée bi ak nguur Sénégal ci at yi ñu wess wanté changer li di yalwaan gi dafa nekk lu xawa a hein, par rapport à ceux qui sont les les problèmes. lu am ba am daal mooy seetlu nañu ni fii Sénégal yalwaan gi metti na fi loolu. ndakaaru nag nekk na destination boo xam ne ñii di taalibe yu ndaw yi bëgg nañ ko lool. Aïda Ndiongue woon ak l'enquêteur yu nekk fële ca division d'investigation criminelle moom nag ginnaaw gi mu génnee yëkkati na ay kàddu di ñaawlu woolu guñ ko woolu lu jëm ci luubal alal gu lewul ti soxna si di Aïda Ndiongue mi ngi sàkk ci gouvernement bi mu fay ko ay juróomi miliyaaram foofu nag démb ca dikk waa PDS feesoon dañ fa dell ngir jàppale soxna si di Aïda Ndiongue dañuy teewlu ay kàddoom ci micro Hadia Talla laaj nañu ma wax naa leen Je suis man enrichissement illicite waruñu ma ci bolé parce que privé la ma suma gérer ay deniers publics ma suma ministre dans un gouvernement ma suma directeur de société man privé la responsable politique waaye pour l'air, ma suis parce que sénégalais est là wax di Baréna. na laaj ma tontu naa leen ma li ma am Je suis leen ma am dañ dëkk kër sama xaalis falaa ko jëlee ma xamal leen ni ba may liggéey yàgg na 84 milliards ba ma koy 1993 laa njëkk féete milliard du ma changé du ma soppeeku dama ni Ablaye Wade laa àndal Karim laa àndal Oumar Sarr laa àndal PDS laa àndal chef ma soumissionné woon gagné ko kenn joxuma ko kenn fayu ma dama liggéey sama xaalis ba pare fayuñu ma ñu may jaay doole doole lañu bu senegaal daal di génnee ab rapport soo xam ne dañuy wane ana naka la dawalkat yi war a doxalee ci tali bi loole sax dawalkat yi di ko rafetlu bu baax dañuy teewlu ay kàddu gu ruxuma document bi lire ko mais ànd nañ ci dafa am lu ñu wax ne bu ci mënul nekk li euh, li tubaab di wax convention collective nit ki xam charte yi ko tënk ci liggéey nga xam ne du liggéey ci tey ak bakkanam yoon lay ci yoon yoon moo ko tënk ne lii ngay liggéeyee nii ngay fay koo ñun dañ ne loolu nañ ko dugal ci biir chauffeur bi xam heure bu muy xëy ak heure bu muy wàcc mu am prestation familiale am am IPRES am am léppam assurance bi ci biir muy mutuelle de santé nga xam ne boo feebaree di nga xam fan ngay fajoo ci ñaari points bu ñu ko dugalee ci biir ñun dinañ d'accord pour valider ko bien vrai que nag point yi nañu wax ne d' accord nañ ci d' nañ ci mais dañoo def réserve ne ñaar yooyu ñaan leen ngeen dugal ko ci biir bu ñu ko dugalee ci biir rek ñun dañuy signé mais bu ñu ko dugalee ci biir wax ne bu ko ñeneen d' tamit ñun duñ ko mën a d' accord dama wax ne gouvernement bu Sénégal avant indépendance ba léegi transport dañ koy junj rek te kenn du ko laal dañ ko war a laal laal mooy lan ñu formaliser ko ñu si bu baax ñu toppatoo auto yi ba mu baax oto bu baaxul def na ba mu baax mu soog daw chauffeur bi ñu mer ko ci condition normal compte ne condition yi may wax li wara am ci digënté chauffeur bi jox nañ ko bam ba matna kon bu defee dañ ka wara daan parce que am léppam bu juumee dañ ka war mais dara matut nga bëgg duma loolu lañ la d'accordu ci ci sigi coor dal ko ñom ñi ngi lu ger gi di faral di am tali bi ndax ci diggante Dakar ak Ziguinchor dinañ faral di fay ni jàpp sax fanweeri junni loolu rek ñuy artu gouvernement bu Sénégal mu def nan ba lu ni mel la dal di dakk waaye itam mu wàññi lii di njëgu gasoil bi Thierno Laurent Mendy Bakary Konté

mooy joxe mille francs bi waaw daa am ñoo xam ne moom dañ lay obligé nga joxe dañ ne boo ne bindal moom mu ne awma kayit bu ma lay bindal donc mu jo mënoo bàyyi si si àll mille francs mille francs fii ba Dakar dina def cinq mille ans chauffeurs yi ñoo xamante ne ñooy dawal ay camion ñoom tamit di ñaawlu eh, loolu nga xamante ne ci tali yi man damay dem Bamako dama ñëw Ziguinchor fépp lay daw daw boo déggee rosi ñu ne nga war a wàcc attesté bëgg laa attesté foo nga jox leen 1000 a bàyyi waaw policiers yi na ñoom nag ñi ñaan gouvernement bi mu daal di wàññi njëgg gasoil bi wante tamit xeex loo xamante ne nekk na corruption bi ci tali bi. ah xanaa mu dimbaluñ rek wàññi gasoil ah? parce que ñun safari mënut dara lu nar am policier ak gendarme léeg-léeg di nga samp léeg doo samp léeg-léeg mun nañ laa arrêté nga samp léeg-léeg doo samp waaw mais yoon bi moom métti na trop man sama loolu moom même bu génn sama bu ko mënee wàññi daal mu baax trop montage yi bëri na trop. chauffeur yi nekk fii ci diwaan bi di xaar nguur bi mu daal di jël ay sanctions jëmale ko ci corruption boo xamante ne mooy am ci tali bi.